ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen Nous leen daan di wax aussi déplacer wa ah, été fi ci euh, yëmbal euh, ñaax mën été Nous 6 été bi Nous avons un espoir comme j'ai la de le ah, une valeur sur dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet mu ngi petit petit modlo ci émission ndogu mbeur tay gis ngeen ñew nañ fekk en mo café ndogu jot ñu distribuer daw ci à gauche à droite bokk na ci li tax tey ñu ne foog ñu samp toog ak waa ji feex ak moom waxtaan xamal leen kan mooy Petit Modou parce que dafa di mbër boo xam ne man dafa mbapat sama kanam daan bëre lu yéeme sama kanam prouvé wane boppam comme chel ci del dire mbër bu ndaw bi mooy maaga doon mbër bu mag kon xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax Petit Modou Lo bu àll bàyyi ñaax Petit Modou Lo bu Daaru Salaam mooy sama invité Thank you. ci lool ne. sant bu naka yi tey. sant bu baax a baax. petit Modou Lo laa jàkkaarloo nii de. waaw moom la petit Modou bu àll baay ñaax. lu wér nga wax mhm. bu Daaru Salaam siis bu bisaab bi. avant tout lan ngay nuyoo ñi lay seetaan. waaw avant avant nuyu sama gars yi. waaw mafia bi lépp. Ah, di nuyu sama grand bu baax nag. mbëri yeeg Baye Fall yeeg ñëpp. waaw di nuyu gaa yëpp nag. grand Modou mais dafa doon loo xamante ne dafa yéeme mu féetewoo sama benn côté waaw Modou waaw. Modou nan. Modou grand Modou. mooy waajale aha mm-hmm. aha moom dafa dafa dafa nekk ki ma tax ma dellusiwaat nga dellusiwaat ci làmb parce que parce que da nga gàddaayoo ba ñenn ñi ne bàyyi na bàyyiwul bàyyi woon nga bàyyi woon naa waaw mais da nga effectuer retour ok ñoom ñoo ma xam moo tax ñu sonn si ba ma delluwaat man ñëwaatal ñëwaatal parce que euh, doguma la avant tout mm-hmm. Alba Niakh dama fi daan dugg yéemu ci yàlla parce que mm-hmm. boo ñaara daan bëree ma ne waaw bu Marley bëree nga ne waaw booy ñaax bu bëree nga yéemu eh, Pape Tigo bu bëree nga yéemu Zarko yaa ngi may dégg yow waxaale wu ma la caam ak ñeneen ak ñeneen a ñeneen mais benn instant da ngay dugg ñu ne la diw bàyyi na diw bàyyi na diw bàyyi na ba finalement ñaar ñoo téye drapeau bi muy Boy Niang ak Marley caam bàyyi na Zarko kenn gisatu ko eh, Pape Tigo bàyyi na Petit Modou Lo bàyyi na affaire bi doon loo xam ne daf ma yéex booy Niang bàyyi na mu yema lol lol lol li waralon nga bayyi lan la avant tout. waaw gannaaw dama nekkon ci situation yoo xam dama ma wëru won mu doon sama mam man suma yaay dafa téla a génn suma papa téla a génn ma nekk suma mam mu yar ñu. fu ñu wara a ma nekk ci lamb nekk ci lamb ben instant. moom it mu joggé fi. ndeysaan mam amatu mu wëru way nak yëpp ñu ma taxaw. fa ma arrière aat dafa sam do dama wat loolu rek moo ko waral mais dara nit ñi nag ñu ngi doon wax lu ne mais ñi xam petit xam ne petit du ragal non ragal moom non ñaax est na ragal ñaax est ce que na fii waaw man daal Alba Niakh est-ce que am na ragal damay laaj ba tey gisuma ko gisuma ko fi parce que ça fait des années des années des années maa ngi fii ñëw ah ay boo yu rëb nga fi gis ku mel ni waajee seen seen eh, kii judu es judu es nee ma grand bi ma ne ko naa mu ne ma ragal amu fi judu es dama toog moom émission mais des fois day wax di wax di wax ba nga xam ne kii mooy loolu mm-hmm. yaa ngi may dégg mais ñi bàyyi Fata bàyyi na. tu vois ñi bàyyi ñoo bari. carrière tu vois yaa ngi ma ci yokkal ñeneen ak ñeneen mais trace trace gis nga beneen daanaan a ngi noonu. trace kooku bu bëri woon des fois da nga naan non kii est-ce que nit la. Mhm. mais ñi bàyyi ñoo bari mais xam naa ni ragal amu fi. peut-être situation mooy taxaw. nit ki tamit lu mu expliqué wul. Mhm. mënoo ko comprendre. tey li waraloon petit mhm. arrêté carrière am. nit ki mënoo ko comprendre mais bokk na ci li tax ma déplacé wu tey boo expliqué clairement. gars yi danañ xam ne ah ndekete yow situation tel moo ko waraloon mais petit nga fi jël combat ñëpp ne tey nga dee man premier man premier maa woon tey nga dee jour nga bëree lu yéem nit ñi bëree bëree bëree ba jàpp daan gi daan jour boobu ne rakk nga ne maanaam ma ne la dootoo jël combat ma ne la tey nga dee parce que des fois damay damay jàpp sama booy des fois nga am sa rakk xaw ko ñeewantal ñaam yi daf may dal ci moom des fois grand bi maag diw man ne non non non kooku danger la jëlal leneen mais des fois nga bu duggé ci lamb ji day woné bofum de telle sorte nga xamné boy dafa am lu ñu denc mais li waralon nga bayyi moy sa mam bi génn voilà nga tok des années amatuma ku ma jàppale des années des années des années bëri ma toogee si làmb yàgg na 2013 ba légui ma ngi tok toog bërituma ah, voilà mais suma ma ci lamb gaay duñ son ci man batay ji yeen sa buñ dajé mané la da nga ragal boy da nga ragal dóor yow da nga toj ba pati mhm. bu dem bu mu dañé démé ba desul lu dul nga dem bëri ji arène nga bayyi di fa ma la da nga ragal door motax nga bàyyi fekk ne boobu yow li nga toogaale xam nga ko. xam naa li ma toogaale xam naa li ma am ay responsabilités yu taxaw. yu taxawaat waaw amoo soutien. situation situation. waral nga jël làmb ji tey ko nele. ba tey ko nele waaw. d' ba jëmi jamono gars yi nii ngay gis ñëpp gars yi toog fi yëpp tey. waaw ñoom ñoo toog sama ginnaaw kenn bàyyiwul ma. ok fu ñu toog ñu ngi mën a sa wërsëg ñu ngi si làmb ji da nga bokk si làmb ji. da nga bokk si làmb ji. waaw yi ñoo la koy wax bàyyi faale. waaw duñ si jóg de. d' ko finalement musuma boobu ba ma bàyyi làmb ba léegi laa la wax. Mhm. billaahi musuma toog journée boo xam ne nit waxaloo man si làmb. kon man naa bokk si làmb. man xam naa ne ma bokk si làmb. da nga bokk si làmb xam naa fu ne. man mii xam naa da nga bokk si làmb ba kër Mbaye Fall boobu ngay wax. ñu interview booy. samay booy ñu ngi foofu. am na booy biir yoo xam mën nañu bégee. te sama jawar mag la fa la jógee kër Mbaye Fall. sa sama jawar mag la kële. ok kër Mbaye Fall la jógee. moo xam ne li may wax bu baax. waaw war naa nekk weer du ma ñëw fii. Mhm. waaw dina làmb lu di dund làmb daal gannaaw dund làmb. léegi prêt pour le retour. instant moom xam naa ne waxatuñ dara ci mbapat yi instant bi ci arène bi nga jëm. arène arène rek sa licence génn. la ngay maa ngi est que da ngay jublu ci licence bi mu génn. ni ma jubluwoon si yow nii. waaw laa jubloo si moom. licence bi licence bi da nga koy lijjanti mu féete boor. nga war a dugg ci làmb ji. dem dóorante ji. kese nañ jël si waat ci mbapat bi sa carrière mbapat. damay laaj waaye xam naa. mais il daa ma laaj quand même booy toj nga mbapate. bon carrément man dem naa fu ne carrément sanjara fu ne dem naa da nga daan jóge fii dem ba sanjara ma fa am naa àll wax ndax pour pour layal marle layal sama rakk jam marle day dem ba sanjara ñu ne ana ana seen mbër boobu petit modlo ok lu amul seede amul ok sanjara toj naa ko billahi wallahi tournoi feneen kër mbay fall grand mbaw kër mbay fall bëri nga fa mbapat non non bëri ma mbay fall grand grand nga fa mbapat mais mais mbapat. mbapat waaw bën bën ah, mbapat laay wax. waaw ah, voilà ñu ne fat fat. waaw fat fat bu fan. fat fat bu feeraay bi. nu mu demee. maa ko daan jël bu gaaw. yaa daan fat fat. waaw fan la woon. fii ginnaaw nii. mais seen terrain bi fi gars yi daan mbapatee dafa mel ni gars yi dañu ko tabax léegi de. dañu ko tabax waaw. ah mais yi tooñ nañu de. lépp mais foofu la gars yi daan tegee mbapati. ñoom ñaax ñoom ñaax fa lañu daan bëree. ñoom Pape Tigo fa lañ daan galé voilà en face buntu galé gaay fa lañ daan boppatee. mais légui dañ ka tabax. dañ ko tabax lepp lepp tabax ni d'accord mais c'est digënté ak fat-fat da ko japp daan. da ko japp daan ban combat nga ñak fii nii am anu na combat boo fi mësa a ñàkk. ngi Mbaye Zos. yaa ngi Mbaye Zos. Zëngal. Demba nga ñak bima koy ñak sax. non kooku doon combat bu mo wara a d'accord mais mais bobu da nga nekk fi di toj. Mbaye Jos nekk fële di toj. waaw ñu boole leen. mais gars yi xam nañu li ma bëgg wax mais du ma àgg nit ba amee victoire rek baxul victoire am. d' parce que keroog seeti naa ko moom tamit. dem naa keroog instant mi ngi côté buun. seeti naa ko ñu toog waxtaan lu lu lu yaatu. Mm-hmm. mais boobu da ñàkk. dama ñàkk waaw. yaa ngi may bi nga jógee ci combat boobu ci nga jël ëmma. ndax jël ëmma bu 44. ëmma bu benn braat. Mm-hmm. kii sama rak sama xarit toog sama jumbukaay Xaalim Ndiaye mii. waaw. jor fa joy man ko rakk mu ne man ko dama nga tok barki serigne bamba ki dama koy daan ñibi man de gëmoo man nga ko daan man gëmoo man nga yëngal dama gëmoko man du yow kase de dangay mbokk mbeur sa gëm mom li am la lay wax man mu wax deug yalla bu may wax ngeen dama wax li ma sentir gëmoo man nga yëngal ëmb lo xamna ni gëmoko parce que bobu ëmb mi ngi joggé asset na jël fa tournoi ëmb nekk mbeur bu bu bu ñëmi entraînement mëna bëré di couler 150 kg mëna bëré waaw mëna bëré lool ëmb bu benn braak avant combat bi dajé nañ mu ne mo boy mu do lañ may jox mané ko non non nañ la jox sa morom waaye li am laa lay wax de. dëgg man li ma sentir laa man du ma jëw. Mhm. avant combat bi lañ mhm. daje benn bravo mu ne ma euh, petit Modou bu ñaax lañ may jox ma ne ko ëmb nañ la nañ la jox sa morom parce que boobu mi ngi jël tournoi bi fële. Mhm. tournoi bi mu fa daan sama kanam par un. ëmb nekk mbir bu xarañ mën a bëre ñeme entraînement. bi taxaw fii nu mu demee. aseg naa nu mu demee. aseg naa combat bi taxaw na mu préparé mu préparé ko. waaw ñu ñëw si bis bi ma dëggal sama bopp sama rakk ji. juróom am lu ko naxee trop ndax boobu dégg na lu ne fii si biir dëkk bi sa waaye day dem mais am dara day ñëwaat ngi du moroom moom boo signature bi rek tax na gars yi bëri demuñu d'accord mais moom mii rek moom mii kese rek mën na tax ma daan waaj moom kese waa moom Bamba kese ndax day nalawatul guddi nalawatul bëccëg micro bi na jege fu ne na jege ma ne ko dama war a toog daan waaye barki Serigne Touba Mbacke nii laa ko waxee laaj ko dafa taxaw sama garab bu ma xoo yow mën nga daan ëmma yow Petit ku raw ëmma mën naa ko daan ku raw ëmma billaahi mën nga daan ku raw ëmma daan naa woo jour boobu foo jaar ëmma parce que man maa ngi fàttaliku mu ngi mel ni mu ngi mel ni film bu ñu ma tegal instant bi jour boobu fi nga jaar sa waay ba daan ko je m'en souviens très bien mais yow dellu si ci film bi ëmma dama ko ñëw indi di koy ragal te man du ma strategi la woon waaw ah, stratégie la. ok su ma Kamu la. ok xam lah, ne kii ponkal la te am na doole te entraîné na. te mën na bëree mën na bëree. mu daw ma daw yi. ragal ragal ragal aha ma ñëwaat adduna bi ma faaw. muy kër kër yi ma xëcc ma daw bëtt ko. bi ma koy bëtt ma ko dóoraale mbëkk. ci el nga jaar ci jaar. ok daw du traction.

caxabal bu mu daan. ndax booy da ngaa baax rek yow da ngaa daan da ngaa mën a daan petit baaboo yow yow euh, kii petit. laayal mën a daan petit baaboo. laayal gars yi gis nga kon boobu rëcc na ma. caxabal bu mu sa diggante ak yàlla bëri ngaa petit baaboo yi. billaahi mbapat. barki borom Tuuba terrain central. man ku fi te ku fi musoon. ngay dëggal loolu. Ah, am na ak yéen a ko yóbbu woon. kon gis nga kon benn benn kon kon benn épisode raw na ma. gars xam nañu bu baax. non sa diggante ak yàlla daan nga petit baaboo yi. jël bu leer jour boobu loo bindu amul benn wérante loo bindu comment na mel non ban ban tur nga yóbbu petit Modou Lo petit Modou Lo mooy dem <laughs> yaa daan petit Baboy man petit Modou Lo maa ko daan au stade euh, euh, euh, terrain central bu yëmbal terrain central bu yëmbal ah garga ak kan la woon du woon garga ak jontina wala surtout taxandeer xanaa ñoom la rek garga la wala taxandeer wala jontina la ñoom la woon mais daal bëri nga fa ak petit Baboy daan petit Baboy ba daan daan nga daanaan mhm. daan gis nga Petit Baboy mi ngi bëri grand combat instant bi ci arène bi kon bi gars yi di dugg ci làmb ji na nga bëri grand kon ainsi fekkoon na nga bëri grand combat waxatuma sax nekk di bëri grand combat mais feneen lañ may dégg te loolu noonu temps boobu nga ñàkk loolu gëm naa ko da nga fas yéene dabuwaat ko billaahi naa ko dab bu soobee yàlla peut dem dóorante ji